for so so Libya je problem tala ite. No, I'm telling you, Alhamdulillah, I'm going to go to Wato ka Alhamdulillah. Ah, sai Alhamdulillah, dai sai da kana da mani da mani. Mu ga har ga su daga. Oh, oh bata yata. Ah, bi dole gambe ya ta tala, you know. Kairona. Allahumma amin. Ya, ina fara ni da ina fara so to, so to na. Aha, problem ta. ok ok ok. ndeysaan may nuyu suñu mbokk yooyu mu nekk doomi réew mi ñoom ñëpp nekk foofu noonu ca Libya ma di leen ñaanal lépp liñ fa uti yal nañ ko am ñu dellusiwaat fii fekkaat ñu fii ci jàmm waaye di bëggee nag ki nga xam ne mooy Ibu Mbuub ñu naan ko Ibu Tan nekk foofu noonu ca Sweden ku bugg a doomu daal la waaye di ko si bëggee di ko ñaanal moom itamit sax su nekk rek suma waay la nag waaye maa ngi koo bëggee bu baax fàttewu ma si suma papa di mu Moussa Dieng ak Antibati ñoom ñëpp maa ngi leen di bëggee bu baax a baax a baax nekk foofu noonu ca Sweden Stockholm ma di ñaanal fan ak wér waaye di bëggee suma xarit bi suma doomi ndey di sista Sadio ma di ko si bëggee lool ma dal di jël kooku noonu ci bi hello asalaamaaleykum. hello. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. yaa raw. yaa booy ci loo maa ngi Brufut rek man man maire bi ah, ah, aji mi laa kool waxtu wu nekk. yaa booy ana waa Brufut. ñëpp a ngi la nuyu. dama laa seet si nag incha allah. xanaa di kontaan rek. waaw dëgg la. <laughs> parce que tooga yi léegi ñun munuñ ko màgget nañ. waaye bente yéen a ñu daax a tooga de yaa booy. ah waaye tooga yi daal tabaat fakkaan la. dëgg la dëgg la mhm. neex na sant na yàlla. dëgg la. Mhm. Mhm. te sant bi baax na sant na yàlla. dëgg la alhamdulilah. <laughs> maa ngi laa ñaanal rek yal na yàlla yokk palaas bi. allahumma amin yaa booy. yàlla yokk gudda fan bi. allahumma amin yaa booy. yàlla dëddaleel ak masibu ak balaa. allahumma amin yaa booy. nizaan suñu réew mi may ñu sedda. allahumma amin. suñu président bi ko. allahumma amin nizaan. moom laa lay ñaanal wu nekk maa ngi toog di déglu. aywa yàlla amin kon dañ naan amin rek. comme que duma dem fenn ba ma jógee Màkka ba tey suma néeg rek laa nekk. ndeysaan ndeysaan ndeysaan nee naa. saa woo tàmbali rek maa ngi toog di la déglu. ndeysaan yaa booy bari na bari na. bari na bari na maa ah, suma xol bi seera na guy may ñaanal suñu yaay jooju noonu bu baax a baax a baax. allo. asalaamaaleykum. waaleykum ah, Baba ñu ngi ana ka mɔgɔ. <laughs> yo. man siramu le <laughs> ah? ah, la. a yoo sarahu

ma jàpp rek <laughs> waaye suma mbokki sarawle yi dañ ma bëgg a jaalal di <laughs> hello salaamaaleykum oh my god hello hello asalaamaaleykum mm. hello hello hi maa ngi laa la Hello? Hello? Oh my. Listen. Hello? Hello, Nam? Hello? Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ajima. Nam? Hello, Arima. Naam. Hello, Arima. waaw maa ngi laa dégg. Ah. Hello, Arima. waaw maa ngi laa dégg waxal rek waxal maa laa dégg. Ah. Hello, Arima. ndeysaan kii nag um, suma mag la and Aji Fatou Dieng si ndeysaan moo ànda suma pa dem Amérique. ndax su ma déggee aji maam rek ñi ma ko dee ooyee bari wuñ bari naa xam ne suñ waa kër la aji Fatou Jeng la maa nuru nag mu ngi mu ngi seetaan sa programme bi maam baaba ndeysaan ndeysaan <laughs> maam ñu ngi seetaan sa programme bi mhm, dëgg la mhm. <laughs> aji anas noppam mbaɗa dara nisan hello anas nisan ba ndeysan bisa mi ina ndeysan hello ndigalla ana suma ba ana suma ba <laughs> ndeysaan um, um, su nekkee yéen a ngi seetaan suñ programme yi bakku bi ndeysaan kooku suma mag la mooy suma yaay nag man ndeysaan ma di ko ñaanal moo suma papa jamono ji ñu ngi foofu noonu ca Washington Maryland ma di leen ñaanal suma papa mi nga xam ne yaramam neexut mu nekk foofu noonu yal na ko yàlla may wér ba mu desuwaat fekkaat ñu fii nii ci Gambia ma diko beggé sama suma sisters ak sama brothers yi ñëpp ñi nga xamné jëmono ji ñu ngi fofu non ak sama papa ma di leen ñaanal dal contane na trop ma dal di jël koku non ci line bi hello alaykum Alaykum salaam. Ah, baba ñu ngi ah, la nuyu. le mbé mbejang dorong ibé ñaadi. mbejang alhamdullilah aha. yo Allah kula yin contane ba ba ba abaraka ñi kontum bidwali fana ma fala din jata kende allah ma min ni bidwala banko e fala kairo sabatindi yo ari sin sama ma sibo nono pema allah ma min na ya nyatu ga kendo fana fala sa membula sa tumbu allah ma min na dino fana balundo fala sa sono allah ma min akuma ta baka baka adamani wala balwo allah ma min alka tabiridiima dima yitandi moolu la teŋ kendema o kumaata baake baake baake yo bari mbe namusoo konton na meŋ keta mariama baati mhm. e, mhm. a be lameŋ kombo lameŋ yo a na ceema bayi jaañi mbe konton na baake disa dëgg la inchallah a baraka hello um, yal na nangu hello salaamaaleykum waaleykum salaam. ah yow kan laa. allo man la naka na def. alhamdulilah. ajuma sa programme bi neex trop. dëgg eh, sooy wax ni ngay waaye tamit baax na trop. dëgg la dafa jërëjëf. Hmm. ele lave mo manke dema dema bua soy soy da program bi mhm el du kalu ngam da ngay kalu bobu dam bobu dina yok trap ci sa ci sa bayr bi degala degala inshallah parce que sa yo waxe da ngay bok ci tour yalla ni ngay waxe anda nak ak l'islam degala waye xam nga suñu borom bi dafa ne jigen dafa wara muru wax ma ne nga ñun suñu ah, suñu ah, boobu suñ aada la. dëgg la dëgg mhm. te yow boo kaalee rek. Mhm. programme bi dina ko gën a yokk. incha loolu rek laa la bëgg a si parce que definitely sa solwaay bi mut nas. jërëjëf waaye pour ah, bàyyi sa kawa sa sa bi. ak mhm. sa yaram bi loolu. loolu daal lislaam waxu ko. dëgg buuri xar loolu bokk. dëgg kon ñëpp tali parce que sawab bi kontaan naa ci torop. dëgg la dëgg la mooy wax rek ci tuur yàlla nga ko te loolu baax na torop. dëgg la dëgg la. Mhm. Ah, loolu daal as ah, a ah, sister loolu bëgg naa ci yokk. ci programme dina baal ma man su wolof setul daal waaye nag. Mhm, incha allah dinañ ko def. thank bëggee suñu càmmeñ jooju noonu di ko.